non dama ñëw ñoom ñaar ñëpp xam naa leen parce que ñoom ay feeskatu bopp la ñu. nuñ tudd. man seen tur mën naa si jàpp ñaar mais damay leb tur bi mais ñun dañuy liggéey Seras amul bandi Seras amul reykatu nit Seras amul ku fiy gaaj nit koo fi gis ñaari jabar ñetti jabar la yor maa leen ko wax ba njëkk làmmiñ nag ñoo dëkk ma waxaat ko mais dañuy màttante te ñoom ñaar tuddoon nañ doom kii tuddoon na moroomam doom kii tuddoon na moroomam doom ñoom ñaar ñu coow bu fekk ko salba rendi ko Arona def na li mu mën liggéey na indi nay gardien indi nay ma chaque jour lu mat vingt personnes gendarme dañ fiy taxaw lu mat ñetti oto dañ fiy taxaw te sama wax bu may mujjee kàddu ba ñëw a diwoo rendi diw man gëw ma ko kooku taxaw naa technopole mu yóbbaale ma. ki rendi ki rendi taxaw naa technopole mu ëndaale ma mais fii woyu amu fi. gendarme te moom ñoom ñoo ñëpp liggéeykat lañ kii am na alal kii am na alal ku nekk tudd na moroom doom. mais lan moo leen war a boole. loolu moo ñu jaaxal fekkeewu ma ko man yëgu ma ko leen war a jaaxal mooy ki ñu jàpp wala ku ñu jàppagul wóoru ma yëg naa ko mais daal Arouna moom Talla président tey ma ñëwee ba si place am barke Seydina Mohamed moom bu ko yëgoon loolu du am ta ñoom ñëpp dañ doon liggéey si biir mais si biir moom ak si dara mu fi jàmm rek la ñuy dox barke Seydina Ahmed am maa soxna kenn ak kenn am na soxna donte ko fi def lu bon sax am maa soxna. est-ce que jarul yokkaat sécurité parce que bu ñu nee seeraas rek ñenn ñu mel ni man seen xel mun naa ñaaw. parce que clients yi mën nañoo ñëw sécurité weesuwul Talla andi ñetti oto wuy ma Talla andi ñetti oto Arona mi xam ne mooy patron am ñetti oto gendarmerie ñiy dox si biir ak gardien yi ëpp nañ mille te ñëpp day di fay. kon sécurité am na kon seen biir la ñoom client mosu fee ñëw ñu rey ko nit mosul ñëw ñu sàcc ko kon ñoom ñoom ñaar ñu doon liggéey bokkul liggéey ñoo reyante mais client mosu fee ñëw ñu rey ko nit mosu fee ñëw sàcc la mais ñoom ñaar seen biir ñoo doon liggéey comme li ngay liggéey kii ngeen reyante. ci dakaar Média ñu ngi fii ci Seras ah. fekk fi suñuy morom suñuy nawle donte am naqar ak bu fi am boo xamante ne ni bett na ñu bari wala boog ñenn ñu bari ñu ngi wax ni jaaxalu leen mais bu ñu fekkee ñi nga xamante ne ñoo fiy liggéey njort na ni xam na ni ci ñaar ñi loolu dal ki fi jóge ak ki ko def tey dañuy xool ñi nga xam ne ñooy responsable yi ñu waxtaan ak ñoom. grand ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax sëñ bi. waaw ginnaaw tey bi ñu xëyee ñëw ci dégg xibaar boobu ci Seras jàpp naa ni bokk nga ci magi Seras yi. muy loo xamante ne ni ñenn ñi bet na leen parce que gis nañ ni déggoo am na fi mais ñooñ ñi loolu dal ay mag lañu wala ay xale. ay mag lañu sax presque am nañu ay quarante cinq ans yooyu mais ndogalu yàlla rek ndax fii seeraas fii kuy dugg da ngay dagg oto buy dugg da ngay fay ticket amul kuy dugg seeraas te doo te doo dagg yàpp bu génn seeraas dootul duggaat seeraas. kon fii responsabilité am na fi ñun ay kilifa la ñu ay responsable lañu ndax suñu président directeur général Arona Galaw Diallo la ba ñoo ngi koy gërëm di ko remercier bu baax a baax ndax liggéeyam rafet na Seras kenn merew ko xëy na nag lii ndogalu yàlla la ndogalu yàlla na kenn mënu ci dara ndax oto yaa ngi daw sax di accidenté waaw ay nit di ci dee kon lii bu amee Seras mënul yàq suñu der parce que ñun ay responsable la ñu dañuy liggéey liggéey moo nu tax a ay borom kër la ñu fii la ñu ngentee suñuy doom fii la ñu takkee jabar fii lañ defee lépp fii lañ defee suñu enfance j'ai fait 28 ans def naa ko fii waaw man ci doyen yi laa bokk presque mais am na loo xamante ne bu dalee fii loolu ñun dañ koy métti lu nag wax dëgg yàlla dañ koy métti parce que erreur mënul weesu loolu rendi nit moom dafa nekk lu doy waar. parce que gars yi nee nañu da ko rendi bi moo xaw a danañ gi sax nit jam nit ci xeex wala ci dara jam ko fenn mu dee mais dañ ne bii da koo rendi. waaw da koo rendi rendi boobu nag moo ñun moo nu jaaxal ba léegi. waaw ndax ñoom ñaar ay xarit lañu dégg naa nag affaire téléphone moo leen boole téléphone sama 20 000 francs sama téléphone moo leen boole depuis samedi ba léegi dem nañ sax ba gendarmerie Seras am na poste gendarmerie. biir Seras biir Seras am na poste police am na poste gendarmerie mais xëy na booy bi li tax mu def loolu ba pare évadé dafa bett ñëpp. dafa bett ñëpp parce que booba nit ñi sax yeewooguñu xam nga ay 6 heures et quelque 7 mooy booba nit ñi ñoo ngi soog xëy moo tax mu évadé mais am na loo xamante ni nag bon ñoo ngi koy sant yàlla te di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xam nga di waaw di sant yàlla baax a baax di gërëm suñu président directeur général di gërëm suñu chef personnel Mourou Talla jërëjëf waaw ci loolu mooy maanaam comme aji dem gi ak ki ko def donte ay xarit lañu ñoom ñaar seen ànd yàgg na wala seen ànd ànd bu bees la ànd bu ànd bu yàgg la je je crois sax dégg naa tuddante nañu ay doom ñoom ñaar waaw ñoom ñaar tuddante nañu ay doom ndax kii yor na ñetti jabar kii yor na ñaari jabar xam nga ñoom ñaar responsable ay responsable bien sûr ay responsable lañu mais ndogalu yàlla moom bu xasee ba ñëw ñëw na loolu moom kenn mënu ci dara waaw dañu ñaan yàlla nag mu yem fii yàlla suturaal lu ñu continuer suñu liggéey waaw ndax suñu kii yi fi ne suñu kilifa yi fi ne ñoo ngi def li leen war sincèrement ñoo ngi def li leen war tey jii kenn mënul dugg Seras benn commande mënul dem Seras li liggéeyuñu ku la woo téléphone sax doo xam loo koy wax man ba ma xëyee ba tey suñu waa kër ñoo ngi may woo xam nga samay sœur ñoo ngi may woo samay frère ñoo ngi may woo samay client ñoo ngi may woo di laaj mais doo xam sax looy expliquer parce que man fekkuma fi. mais tey bu ñu daan wax comme agression bi ci xale yi wala fitna bi ci xale yi tey bu dalee comme ñoo xamante ne ñaar ñi kenn ki am na ñaari jabar kenn ki am na ñetti jabar ñooñu ay responsable lañu maanaam sadik boobu léegi am ci biir Sénégal. ah doy na waar parce que tamit loolu moom loolu moom jaaxal nañu sa waay parce que Sénégal léegi du seeraas rek nit ñaa ngi jamante fu ne. nit ñaa ngi reyante fu ne. oto yaa ngi fiir nit ñi fu ne oto yaa ngi def accident fu ne ay 40 morts ki 30 ci ay accident yooyu loolu doy na waar loolu day na waar ñun daal nañu yàlla dolli sutura yàlla dollu ñu sutura bu baax a baax waaw te jàmmal nu nag loolu rek la ñuy ñaan. ginnaaw seeraas rendi xar lañ fi gënoon a xalaat tey ci biir katu xar yi ñu rendente seen biir. tey waaw kooku kooku moom du rendikatu xar. waaw feeskatu boppu xar la. waaw du rendikatu xar. rendiwul xar kooku day fees bopp bu nu rendee ba pare dagg bopp yi. ñu fees ko daf ñëw rek di daan dooleem bokkul ci embauchement Seras bokkul ci autorité Seras waaw amul ku fi ñëw la rek di liggéey waaw liggéey nag moo ko fi indi comme lim ñu fi indee ñun ñii waaw dañuy liggéey mais ñun am nañu jéego yoo xamante ni buñ ko doxee sax moom du ko fekkee waaw bokkul dara yi Seras waaw du embauchement jëlu ñu ko fii benn fi benn qualification am ko fii ñoom bu ñuy liggéey sax ñun du ko fekkee dañuy tagg tike ñoom ñoom ñoom seen bopp dañuy tagg dugg ñun chevillards yi ñun ñoo ay responsable yoo xamante ni dañuy ñëw seeraas même boo amul nag da ngay dugg liggéey sa liggéey boo defee sa commande nga def say commande say client wala nga def say commande dem ñibbi ci jàmm ak salaam ñun loolu la ñu xam di gërëm nag suñu kilifa yëpp waaw yéen euh, euh, sant yàlla rek parce tamit am na loo xamante ni loolu sax du sécurité. parce que parce que am na loo xamante ni nit mënul sécuriser boppam yàlla rek moo mën a sécurité sécuriser nit. xam nga te am na loo xamante ni bu dalee ci askan nag dañuy daal di sant yàlla ndax ñun suñuy kilifa ñàkkuñu fayda. waaw suñuy kilifa ay responsable yu am personnalité la ñu ñu ñëpp xam ñu Sénégal xam Arona Ba Sénégal gépp xam nañ ko Mamadou Talla Sénégal gépp xam nañ ko papa ma nekkoon daral gii yor ko gérer ko mu ñëw seeraas gii gérer Seras suturaal waa Seras ku am histoire boo demee ci Talla mu dalal la mu dalal la nga wax sa problème ku tooñ mu mise à pied la fii ku fi liggéeyee Seras ku fi liggéeye moo du déglul Seras ku fi liggéeyee soo xeexee dañ lay génne Seras mise à la un mois borom kër gu nu mise à pied kooku dootoo talati kuloo dootoo tal xeex nañ waxante dëgg ah. nit nag ku conscient la ñuy wax ah. xëy na nag moom man de xaw ma mais moom doy na waar ren di moom dafa doon dafa doon lu doy waar. doy waar kanta ay paaka jaas yi ay paaka jaas moom ñun miin nañ ko yàgg nañ see liggéey duñ am benn problème ñii am na ñoo xam ne fi dañuy jaay yàpp mais amuñ sax xolu ren di ginaar. question ay paaka jaas yi ngay liggéeyee rek da ngay sadik du noonu quoi ñun ñu ngay gis ñi xaalisu yàpp lañ ñu génte ay buusa lañ suñ luñ am buusa moo ñu ko may yàpp lañ xam man mii di wax yow bitim réew laa ne woon société bi moo tax ma ñëwaat ndax fii lu mu mën a am fii mënu ma ko am bitim réew comprendre nga bu baax façon nit bu nekk mu ngi fiy daje. Paka a yi ñun dañ ciy liggéey duñ ci. mais comme tey bu ñu nee Seras rend bi gars yi di rend yenn yi di ko gis mun na dem ba naawloo koo xamante ne. loolu mooy loolu moo indi problème bi man loolu moo mu def cas. clients yi façon ministre sax day ñëw fi jënd yàpp. ku ne ñëw na fi ku nekk day jënd fii yàpp. ministre yi sax seen yàpp fii lay jógee Macky Sall yàppam bi muy lekk sax fii lay joge fii yàpp bu fiy génn dañ koy inspecté vite bañ na ko ba yàpp boo ko génnee doo ko dugalaat. comprendre ñun yoruñ société caaxaan fa xar wala nag clandestin la seeraas la ñuy ngay jënd ticket comprendre nga ñun luñ suñ problème mooy bu mu nekk kirim la seeraas la amee ba pare rendi la loolu moo ñaaw loolu moo ñaaw mais chaque jour parce que seeraas seeraas seeraas rendi xar lañ fa gënoon voilà a li ngay wax ni ñun xam nañ ko man mi man mi takk soxna dañu mujj def enquête ne seeraas lay liggéeyee dama leen xool nax bande la heureusement ba si ki ñu nañ ko boo leen ko mayul da ngeen di daanu kooku nit ku baax la fi façon nit bu nekk daje na fi ñun bi ñuy liggéey tur bi ñuy rax la loolu dañ ci waxtaan j'espère que si ñu njiit ñoom dañ ci waxtaan segg société bi ndax dafa nekk société boo xam ne mënoo fee xëy lu métti métti da nga lijjanti sa dépasse boo reyee nag boo reyul nag booy xëy doo indaale cent franc da nga am sa dix mille am sa yàpp yóbbu loolu yombul si Sénégal ku diñ toll loolu moo fi réel ku golo gu jóg màbb j'espère que si kanam tuuti comme lii am nii métti na mais xam naa ne balaa keneen du fi duggati pour liggéey ñi amul carte ak ñi newul embossement Seras j'espère que duñ duggati fii. waaw que loolu tamit jarul gën a saytu quoi. gën a loolu moom loolu moom loolu moom. dañuy patron loolu moom DG. suñu kilifa yi dañ daxal Seras. ku am personnalité la. Seras mooy il faut ñu raxas kenn yabu ko loolu ñun sax xam nañu Sénégal kenn yabul aaróo la affaire bi am nii. yaa dégg nga il faut ñu raxas Seras nag lu fi am nii tey ndogal la rek mais ñun suñu kilifa bu taxawee. walaay dina ko raxas dana dana def nag liggéeyam dana def liggéeyam. li war Seras dana ko def. dana ko def raxas bi moom dana am. dana am dana am ñoo xamante ni dañ leen di génne Seras dootuñu. même bu ñu daggee ticket sax duñ dootuñu dugg Seras parce que loolu mooy. loolu mooy liggéey bi loolu mooy liggéey bi parce que fii ay nit ñoo fiy ñëw. ay kilifa ñoo fiy ñëw Seras a ngi nii léegi ndekki bi VIP la VIP la chaque jour gars yi fi ñëw di ndekki dimanche fi la ñëw di ndekki samedi fi la ñuy ñëw di ndekki chaque jour kilifa yaa ngi fi ñëw doomu kilifa yaa ngi fi ñëw di gaare seen i oto di li ñëw di ndekki ñun ay responsable la ñu liggéey moom nu tax a jóg waaw suñu kilifa nag ñoo ngi koy ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér tey tey di ka ñaanal yàlla mu jël précaution waaw tey suba daal lañ ñëw ñu yeewoo nouvelle bu naqari ñun man ay 9 heures laa fi ñëw gis nit ñi fii fees del waaw bu ma laajtee nu mu demee ñu ni dafa am ko xam ne dañ ko fay rey quoi euh, après saalu xar la xam dafa am saalu xar saalu nag xam nga foofu lañ leen di abattre léegi ndekete moom xam naa peut-être règlement de compte la wala histoire la xam nu mu demee daal ñoom ñu ñu ni daf ko rendi daf ko rendi foofu daf ko bett rendi ko waaw noonu daal la ñu xamee amee nouvelle bi mais dugguñu source yu baax tax ñun jotuñoo dugg ci biir quoi ñun côté der yi lañ nekk ñoom bu ñu liggéeyee ba pare dañuy génne der yi ñun ci la ñuy jënd der yi moo tax ñun amuñu accès foofu ndax privé la ko zone bi ngeen déggee nouvelle boobu tey ak seeraas ni ko nit ñi di bàkkee ci léeg nga dégg ci baat yi ñaaw tey ñu ne fi ñu jii ñi ren di ren nañ fa doomu aadama en tant que kuy liggéeyee seeraas. <laughs> non xam nga seeraas nag bëriwul lu ñuy def lii de lii bëriwul fii lu mu fi am xam naa c'est la première fois yeneen zone yi ñoo gën a dangereux seeraas foofu zone bi moom amul benn problème amul benn danger ndaxte ñi fiy nekk ñëpp ay mbokk lan ñi ay ay frère lan ay xarit lan xam nga ànd xëy liggéey si wàcc tur wi nag moo xaw a garaaw mais amul amul benn problème lii moom accidentellement la rek quoi waaw. xam nga ay jeunesse jeune buy liggéey ci ay paak yooyu seen yaram bu tàngee xam nga bu fekkee amoo tuuti compréhension da ngay da ngay def jaay jéye waaw moo tax. mais en tant Biir Seras tey donte lii dafa betti ñëpp mais tey fitna bi nekk ci jeunesse bi en tant que tey mag loo xamante ne ni boo ko waxee jàpp nga ne xale yi war nañoo mën a dellusiwaat seen xel. waaw fii moom presque fitna bi ñu ciy bi ñu ciy wax yëpp amu fi parce que manifestation bu mës a am ci dëkk bi fii moom bokku ci fii moom jàmm la ñu am dañuy liggéey normal temps yi manifestation yi liggéey normal mais accident yi moo fi am rek ñu jël nag seeraas la fa xew la fa xew te pour pourtant day xew ci yeneen zones yi muy gën a garaaw fii li fi xew ay scandale yu mel ni bari du milieu bi comme dañ fay ràññee ren ak affaire waaw li ñuy rendi moom dañ ko dañ ko autorisé xar nag béy xam nga dañ ko autorisé ci biir waaw mais gars yi gars yi sax duñ génn ay paaka nii bu ñu liggéeyee seen liggéey ba pare ku nekk yor nga sa casier boo xamante ni ci ngay sumeeku denc sa tenue denc sa arme ak sa yëpp génn doxantu ñibbi sangu ñibbi mais duñ ci sax doxantu ak. mais tey est-ce que nit bu dee tiim rendi rendi bu yàggee loolu mun ko absenté. ah peut-être deret bu waaw on sait jamais parce que nit bokkul yem quoi nit ñi bokkuñu yem te damay lancer message pour tuuti rek euh, ñu fiy dugg. ñuy am benn formation bi wala ñuy xool psychologiquement di xool nit ki di ko examiner mu doog a door ko may autorisation pour mu dugg seeraas di di di di liggéey fees wala muy liggéey rendi man mo soon noonu la ñuy def quoi pour xam nga xam yaa ngi yëngu ci deret doon xale buñ la laalee nga mer wala nga sofe xam nga def jëya kooku dañ la war di seet xam ban genre nit nga ko man loolu laa gis. pour xool mentalement. voilà ok voilà. kii Galaye Talibé Bamba ak yéen ci Dakar Média fii mooy seeraas. seeraas nag ñu ngi ko xamee ci di xar aki i nag ak sokaas ah waaw fii coupé loolu coupé loolu waaw mbokk yi fii mooy dëkkuwaay bi ñuy wax Seras fii nag am turam spécial mu ngi noonu ngeen di gis muy Sokaas te ñu xamee ko ren di xar ak nag bañ na ko ba màndarga gi mooy bopp nag bi tey nag ñu xëy ay doomi réew mi di fi liggéeyee di fi ñàkk di fi liggéeyee di fi ñàkk di am lu ñuy yóbboo seen i njaboot nag ñun Sénégal bàkkee nañu ne Seras xale ya fa nekk criminel dafa bari parce que dañuy wër di ren di xar ak nag mun nañoo ba deret bi fa naaw leen waaye tey nag ñu xëy dégg fi li nga xamante ne lu ñu bett la ci Seras ñu tax waa Dakar Média daw si ñëw pour leeral leen fii la fee bi amee rendi la ko def te nee nañu ñoom ñaar ñi rendante tuddante nañ doom kon dama naan seetaane amati na ndam ci seen kaw waaye ñu ngi ñaan ki fi jóge suñ borom xaare ko àjjana te yéexañu ki ko defit ñu jàpp ko yoon xam lu muy mujjanteeg moom ndax doomu aadama dafa foor dañ ne droit de l'homme ki rey l'homme la ki ñu rey l'homme la waaye nag nii rek lañ koy defee di leen ko topp ak yéen ci feey yi boo gisee ñu taxaw di leen wanal mbardarga bi mooy fii la amee waaye taxul nit ñi fi nekk bon mbaa ñu soxor liggéey ñaq jariñu la ñu xam defe naa ni ndawal loo bëgg ci Sénégal bu génnee fii sa xel dina dal dina set am hygiène ba nga ñeme ko ba nee nañu fii buñ la jaayee yàpp boo ko génnee dootoo ko dugalaat ndax ndawal la boo xamante ne vétérinaire yi ko war a saytu danañ ko saytu muy nag di xar di gëléem di loo mënti gis balaa ñu koy rey dinañ ko saytu ba xam doomu aadama mun na koo jëfandiku waaye ñi nga xamante ni ñoom la jëf ji dal ci seen kaw fan yi boobu ñu ngi leen di masaw ñi ñàkk ki ko defit ñu ngi masaw famem te xam ni seytaane moo amati ndam rek ñuy ñaan suñu borom musal ñu ci muccal ñu ci musal ci seeraas muccal ko ndax lii bu continuer mën nañoo namu yàpp sàmbeen yeek mbuubeen yeeg waddeen ni bu lii ne doot ñu gis ndawal lu ñu lekk loolu la leen andiloon ci Dakar Média ak Galaye Talibé